Monsieur le ministre, Monsieur le président de l'Assemblée nationale, chers collègues députés, chers Sénégalais, je vais commencer par présenter mes condoléances ressenties au peuple sénégalais suite à l'incident de, de qui porte euh, vraiment euh, des, cicatrices dans mon cœur parce que mënuma gis nit bu lakk ba loolu bokk na ci loo xamante ne metti na ma lool te comme yow yàlla def na ne monsieur le ministre nit ku xarañ nga ci wàllum gëstu loolu na ko gëstu ba xam ñi ko def nga won leen ñuy gis parce que loolu rek moo mun a nekk juróom-ñaari Sénégal mënul am benn rek moo am monsieur ministre ma commencé rendre hommage aux jeunes karimistes ici présents dans la salle. Venus de partout, venus de partout, pour nous soutenir. waaye monsieur président monsieur ministre histoire dafa bëgg maa fekke tubaab maa fekkee rek la bëgg ma rendre hommage député yi nga xamante ni dañ daan toog fii di ko fekkee tey defe naa ni ci opposition bi président moo is Abdou Mbacké rek moo fi des ci ñu doon xeex keroog bi ñuy dindi loi bi ci code électoral bi monsieur le président ma rendre hommage le président Abdoulaye Wade tax far ma demba borom jëm leen ci raamaan may sa rey na gaynde maa sàmba rey na gaynde gaynde du jur muus di rendre hommage doomam ju baax bi le président Karim Meïssa Wade xam nga lu ko waral ñetti at nañ ko tëj ak juróom benn weer mu toog rek def calme calme down jàpp njàmburam lool noppi lool doon homme d'état da ngeen koo tudde woon ministre du ciel la terre mu jàngal leen naka la ñuy liggéeyee ubbi pont yi xàll réew mi tabax li nga xamante ni mooy aéroport gas génni autostrada kani ma tax ngeen xam ma ne boo demee Almadies bii da ngay sàcc kani wan sa xaw nga koy bëgg par force ndax xale bu góor bu mën a liggéey ma ne kooku tey buñ ne bokk na ci sénégalais yi nga xamante ne dañ leen a war a boole ci fichier comme ni ma koy waxee nag waxoon naa leen ca bande bu njëkk ba ni leen ku tëj juróomi at yaa ko day tëj ci moo tax sama jëkkër bii moo cousin Thiendé la ma ne ko rends-moi la carte de Karim na ma ko waxee woon sa prédécesseur Aly Ngouille monsieur le ministre dinaa kontaan lool bu subaa boo xëyee yónnee Karim Wade bi kartam day dawaat dina ma neex dina ndax dama cee xeex ba taay ministre le président Abdoulaye Wade daf ñu woon injustice fu mu leen fekk na ngeen ko xeex gis nga position yi ma sa jël ci assemblée bi yépp góor bu baax googu góor bu démocrate googu góor bu yéwén googu moo ñu ci xirtal moo ñu ci nàmpat damaa jàpp ni nag wax dëgg yàlla Sénégal dafa am luñ fi représenté ñii du parti démocratique sénégalais tey bu ñuy dem bay xëccoo nag bokk chef de l'opposition <laughs> waxuma kii de waxuma ki dëkk fii ci ginnaaw borom Thiès chef de l'opposition laa ñun la le chef de l'opposition parlementaire se nous buñ demee ba di ko xëccoo ay élection dañ cee war a bokk comme ni ma bëggee nag ñëpp bokk waaw waaye nag sama boppam la gënal du bañ naa la man man bu ma taxawee fii di wax Ablaye Wade ak Karim Wade ñoo ma xool ci benn liste neexuma leen ñu gome ma ma toog dama leen a neex ñu bëgg ma bañ ma ko ba le président Ablaye Wade daf ma woo ba Versailles ma ñëw toog keroog bi ko gaa ñuy war ñëw dem tamit ñu bëgg a mu ne ma j'ai pas regretté de faire de toi mon député chaque fan ma dem ba borom dañuy cee man wote ba tey xëy asalaamaaleykum wa